asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dal ak jàmm ci xibaar yi digg bëccëg yi bàyyeekoo QTV ak Q radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak Xadijatu Koli ñu seeti bopp xibaar yi. nguurub Korea bi ñoom ñoo yónni ñenn ci seenub kilifa yi pour ñu ñëw am waxtaan jaaral ko seenub diggante ak njiitub réew mi di président Adama Barrow te ci altine bi kilifa yi def nañ ndaje gi ñu waxtaanee mbir goo xam ne moo aju ci wàllum mbéyub réew mi kilifa yu bàyyeekoo sa kóor ya doon nañ ay xarañteef bu ñëwee naka ci wàllu mbéy mi te waxtaan gi naka dañ ko tubbee ci ni ñoo mën a yokkee xam-xam ni ñoo xam ne ñoo nekk di yëngu ci wàllu mbéy mi bu ñëwee ci biir réew mi pour gis naka yokk nañ leen xam-xam woon leen naka sa tey ñoo mën a jël ngir seenu mbéy mi naka mu njëriñ réew mi député yi comité gu ñu taxawal pour ñu seytu lu aju ci wàllu wérgu yaram bi maanaam mbiru fajub tubaab gi ak it mbiru pharmacie yi ñoom naka ñoo oo kilifa yu nekk di liggéey ci bànqaas bu ñu dénk garab yi dee dugg ci biir réew mi ak tamit doon bànqaas koo xam ne ñoo dee bàyyi xel pharmacie yu nekk ci biir réewu Gambie bi si altine bi comité bi dajaloo na ak kilifa yi matuwaay gi ñu jël ko pour gestu mbirub garab yu dugg ci biir réew mi mu nekk di faat tuut tànk yi te ñu wax ne moo nekk di jox tuut tànk yi naka jàngoro bu ñu naan aak ëmpale wuñ ne nag trafic bi bu ñëwee nag ci biir réew mi surtout ma ci suba gi wala ci ngoon si doon na mbir boo xam ne nag métti na torop ci askan woo xam ne nag ñoo di yëngu ci wàllum dem ak dikk bi te nag si jamono ji ñu bari nag ñu ngi koo joytu tax na nag QTV ñu génn pour waxtaan ak askan wi xool nag mbirub trafic bi maanaam yoon gi xataay gi wala sax yéexaay gi nu mu la nekk di sonale ci seen wàllub dundoo. mbokk yi li doon bopp xibaar yi ñu taxil bu ñu dellu see ñu yaatal xibaar yi fi jot am ci bëccëgub tey bi. na yenn xarañteef yu bàyyeekoo ci dëkk Corée bi ñu doon ñoo xam ne nguurub Corée bi ñoom ñoo leen yónni ci biir réew mi ci altine bi ñii nag am nañu ndaje jaaral ko seen diggante ak njiitu réew mi di président Adama Barrow matuwaay bi ñu jël ko rek pour waxtaanee projet goo xam ne ñu ngi ko fas yéene liggéey ci biir réew muy dooleel wàllu mbéy mi dooleel it ñi nga xam ne ñoo nekk di yëngu ci wàllu mbéy mi délégation bi mi maanaam kilifa yu bàyyeekoo sa kuur yi ñu ne ay nit yoo xam ne ay xarañ teef leen naka dañu xarañ torop bu ñëwee naka ci wàllu mbéy mi wàllu aju ci mbirum mbéy mi seen waxtaan goo xam ne am nañ ko ak président Adama Barrow ñu ngi ko jubal naka ci satta ak it matuwaay yoo xam ne ñoom yooyu lañ dee jël ci seen wàllu mbéy mi pour gise naka dajaloo nañ ak béykat yi yokk leen xam-xam ci sarta yooyu ni ñoo mën a jël pour gise naka seen mbéy mi dina leen mën a dundal dundal tamit askan bu nekk di yeewoo ci biir réewu Gambie bi ompale bu ne weer ci ginnaaw nguurub Korea bi yónnee woon nañ naka ab délégation ñoom ñu waxtaan ak président baro jëmale ko ci projet bu ñu fas yéene liggéey ci biir réew mi ñii nag ñëwaat nañ pour waxtaan ci benn projet bi muy wàllu mbéy ngoo xam ne ñu ngi ko fas yéene dooleel matuwaay bi ñu jël ko pour nguur gi jox leen pàkk ñoom naka ñu mën a dooleel wàllu mbéy mi tamit ñu dooleel nag béykat yu nekk di yeewoo ci biir réew mi ginnaaw ba ñu amee ndaje bi jaarale ko seen diggante ak njiitu réew mi président Adama Barrow kilifa gu jiite délégation bi moom nag moom doon gaaral kàddoom ñu ko làppatoo ci kàllaamay àngale moom nag wax na ne matuwaay gi nag doon na mbir goo xam ne mbir gu am solo la te nag waxtaan gu ñu am ak njiitu réew mi président Adama Barrow waxtaan bu yokkute la ak itamit mbir la goo xam ne dafay doole réew mi bu ñëwee nag ci wàllu mbay mi wala mbirub dund gi mu ko di wax ne nag si jamono ji nguurub Korea bi ñu ngi fas yéene tëral nag ab matuwaay pour réewu Gambie bi ci bayum maala bi te maala goo xam ne naka boobu lañ fas yéene dooleel ci biir réew mi mooy maala bu ñu tuddee tongil mu doon maala goo xam ne naka ñoom boobu lañ dee bay ci seen réew mi te naka maala la goo xam ne dafa neex tamit baax na bu ñëwee naka ci dundu doomi aadama mu kontee di wax ne lu toll si ay junne kilogramme ci maala doon na mbir boo xam ne naka ñoom loolu la ñu fas yéene bay ci biir réew mi te lii naka askan bi yeewoo ci biir réewu Gambie bi ñoo koy dundi docteur Demba Sabali moom mu doon ministre bu ñu dénk wàllu mbay mi moom naka wane na mbégteem ak kontaanteem di wane it matuwaay goo xam ne nguurub Gàmbi bi ñu ngi ko facilité jël lëkkaloo ak nguurub Korea bi pour gis ne dooleel nañ mbirum mbay mi dooleel it projet boo xam ne naka kilifa yi ñu ngi ko fas yéene liggéey ci biir mi mu ne tamit matuwaay gi naka ñoom nañ ci lëkkaloo ak ñoom pour gis ne yokk nañ xam-xam yi ak ñu bëgg yëngu ci wàllu mbay mi ngir gis ne dooleel nañ mbirum maala bi bu ñëwee ci biir réew mi mu konte di wax ne naka projet bi dafa am ay pàcc waaye naka nañ ci waxtaan ak kilifa yi xool naka pàcc yi niñ koy taxawalee te lii nag ñu ngi ko fas yéene dooleel te koppar gi dafa jaar naka ci ministre bu ñu dénk wàllu koppar gi ak doxalinu koppar gi bu ñëwee ci biir réewu Gambie bi. tax na nag kilifa yi ba ñu bàyyeekoo si bureau njiitub réew mi am nañu waxtaan ak ministre bu ñu dénk wàllu koppar gi ak doxalinu koppar gi mi wéyoo ci Sidi Keita jëmale ko naka ci projet bu ñu fas yéene liggéey ci biir réew mi. si mbiru projet bi nag ñu ne ñu ngi ci fas yéene lëkkaloo ak nguuru Gambie bi lëkkaloo ci tamit ak bànqaas yu taxawal seen bopp bànqaas yu mel ni mbootaay yëpp kii groupe bi te naka seen chairman bi doon na naka honorable council bu dëkk Korea bi mu toogal leen ci biir réewu Gambie bi muy wuyoo ci Mohamed Jaa Mr Jaa moom moom doon gaaral kàddoom mu ne ma ngay jaajëfal nguurub Gambie bi surtout ma njiitu réew mi di président Adama Barrow ci taxawaay goo xam ne nguuram gi jël nañ ko pour dooral naka projet bi nii mu continué di wax ne am na mbir yu bari yoo xam ne nag ñu ngi ko war a jàngee ci xarañteef yu bàyyeekoo ci dëkk Korea bi te lii nag lu moo njëriñ mooy banqaas yu taxawal seen bopp ak banqaas yu nekk di liggéey ci nguur gi ak i tamit projet bi dina isi ab wéccite ci dundinu askan wi Republic of Korea muy dëkkub Korea bi kóllëre goo xam ne naka séq nañ ko ak réewu Gambie bi doon na mbir boo xam ne naka mu ngi commencé ay ati at ci ginnaaw te kóllëre googu kilifa yi ñu ngi jël matuwaay bi pour gis ne gën nañ koo dëgëral bokk na ci taxawaay googu naka tax na ñaari dëkk yi ñu fas yéene lëkkaloo pour dooleel mbir yoo xam ne naka mooy isi wéccite ci dundinu askan bi yeewoo ci biir réewu Gambie bi ak it ñoo xam ne ñoo nekkee sa dëkkub Korea bi matuwaay googu tax na naka Korea ñoom it ñu ngi continuer di dooleel réewu Gambie bi di leen jàppale ci jafe-jafe yoo xam ne naka ñu ngi koo jàng jànkuwanteel ñu taxaw pour gis ne saafaraal nañ ko te loolu tax na tamit ñu jël naka matuwaay bi pour liggéey projet bi ci biir réew mi ngir dooleel askan wi ci dund gu jafe goo xam ne naka ñu ngi koo joytu comité bu pencum réew mi taxawal pour ñu saytu lu aju nag ci wàllu wér-gu-yaram bi ñoom nag ñoo oote ndaje jaarale ko seen diggante ak kilifa yu nekk di liggéey ci banqaas bi saytu garab yu dee dugg ci biir réewu Gambie bi ak mbiru pharmacie matuwaay bi jël nañ ko rek pour gis ne banqaas bi nag indi nañ seen report jëmale ko ci liggéey goo xam ne naka def nañ ko ci at yi te lii naka ñëw na ginnaaw ba ñu waxee ne am na naka garab yu dugg ci biir réewu Gambie bi ñu nekk di faat suñu tuut tànk yi di leen di jox naka jàngoro ju ñu naan aki kilifa yi nag seenum ndaje gi def nañ ko ci altine bi te si jamono ji nag ëmpale wuñ nekk ñi nga xam ne ñoo nekk di liggéey ci banqaasu police gi ñoom naka ñu ngee def ab gestu jëmale ko naka ci mbir mi tax na tamit select committee goo xam ne néegu député baa ko taxawal pour ñu gestu lu aju ci wàllu wérgu yaram bi lu aju naka ci ndaw yu tukki jaare yoonub ginnaaw gi mbirum ñaawteef gi ak wàllum ndimbal gi ñoom naka doon na ñoo xam ne taxaw nañ tamit pour gis nañ gestu nañ naka liggéey yëpp kilifa yi ñu nga xam ne ñoo nekk di liggéey ci banqaas yu dee saytu garab yi dee dugg ci biir réew mi ak wàllu pharmacie bi matuwaay gi ñu jël ko pour gis ne indi nañ ay leeral jëmale ko nag si jàngorob ak bu ñu wax ne moo nekk di fàttu tànk yi te lii nag ñu ne lu toll si juróom-ñaar ci ay ndaw yu nekk di yeewoo ci biir réew mi ñooñu la ñu faat ñooñu ñoo si ñàkk seen bakkan gina ba ñu leen ooyee naka si ndaje bi ku ñu naan Amadou Camara moom mu doon naka ci apartin si select committee bi moom naka wax na mbir yoo xam ne naka ñu ngi ko fas yéene waxtaanee jaarale ko seenu diggante ak ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci bànqaas bi saytu garab yi dugg ci biir réew mi mu wax ne naka si jamono ji tànkagul comité bu jël mooy naka gestu nañ mbir mi xool naka ñan ñoo sababu ñaawteef goo xam ne naka daanu na ci kaw tuut tànk yi ginnaaw ba ñu joxee nag kayit yoo xam ne yooyu la ñu bind jëmale ko ci seen wàllub liggéey bi executive director ci banxas bi seetu garab yi dee dugg ci biir réew mi muy wuyoo ci Macky Jaane Kayra moom naka wax na ne leetar goo xam ne naka boobu la isi doon na naka sarta yoo xam ne moo leen nekk di yóbbu ci seen wàllub liggéey bi te yi naka foofu la ñu bindi garab yu dee ko sa bitim réew ñuy dugg naka ci biir réew bu Kambi bi mu ne tamit am na ci yenn kayit yoo xam ne naka ñu ngi ko amee waaye yooyu naka mënaguñ ko indi maanaam indee guñ ko mu konte di wax ne naka waaye lu mu mënta doon kayit yoo xam ne naka ñoo des ginnaaw muy ñaari kayit yu des ginnaaw dinañ def naka seen kéem tolluwaay kattan pour gis ne indi nañ ko ci kanamu comité bi balaa ñuy ndar keppal seen liggéey bi ci altine bi. ginnaaw ba mu ye ak comité bi ku ñu naan Omar Gueye moom la ñu wax ne moom moom Lansing bu nekkee di jëndee garab yi naka sa dëkkub Chine gi di ko isi si biir réew mi moom naka xamal na ñi nga xam ne naka ñoo nekk ci comité bi ne kayit goo xam ne naka boobu la moom doon na koo xam ne naka daf ko joxe pour ñooñu ñuy liggéey si mu ne waaye nag moom it am na ay kayit yoo xam ne mu ngi ko war a isi ci kanamu comité bi kayit yooyu naka si jamono ji indee ngut ko waaye naka mu ngi leen di dig ne moom it naka dina matal kayitam yëpp jox leen ko teg ko naka ci loxob comité bi ci yaabu comité bi muy wuyoo ci honorable Amadou Camara moom naka indi na ay leeral ci kayit yoo xam ne naka jox nañ ko comité bi mu ne waaye naka moom bugg na pour naka kilifa yi ñu matal seeni kayit yi ñu war a indi yëpp muy ci bésub tey gi muy talaatab tey gi mu tombeek ñaar fukki fan ak juróom ci weeru octobre mu ne ñoom naka kayit yi ñu soxla pour mu jàppale leen ci seenub gestu gi mbirub garab gi nu mu duggee ci biir réew mi ak nu mu ñëwee doon na mbir boo xam ne soxla nañ ko ngir loolu naka moo leen di jàppale ci gestu gu ñu nekk di def mu ne kon naka mu ngi ñaax kilifa yi pour kayit yooyu nañu fexe naka pour gis ne indi nañ ko ci seenum ndajeeku tey gi bokk na ci mbir yoo xam ne naka yooyu la ñu nekk di gestu muy naka garab yoo xam ne yooyu la ñuy jëndee ca dëkkub Chine bi isu ko naka ci biir bu Gambia bi ak itamit ñu ngi gestu ban façon ngi lansin la ñuy naka amee ba mën a indi naka garab gi ci biir réew mi tamit naka seenub liggéey gi ñu ngi ko àndale ak lu waagoo xam ne naka fesaloon nañ ko ci atu 2014 gestu gi tamit bokk na ci pour xool naka doxalinub liggéeyu pharmacie yu nekk ci biir réew mi bàyyee ko ci atu 2018 si altine démb bi naka kilifa yi seenub ndaje gi ku ñu naan Mouhamed Lamine Diété moom teewlu na fa mu doon PS ci ministre bu ñu dénk wàllu wér-gu-yaram bi ku ñu naan Essa na moom mu doon directeur ci bànqaas goo xam ne naka ñoo nekk di gestu garab yoo xam ne naka yooyu lañ nekk di indi ci biir réewu Gambie bi tamit naka di gestu yu pharmacie bi kilifa yi naka bokkoon nañ si ndaje bi pour jàppale comité gi ci liggéey goo xam ne naka boobu lañ nekk di def muy gestu jàngoro ji naka ak it garab gi nu mu duggee naka ci biir réew mi ëmpale wuñ na nag ci fan yi ñu nekk yoon wi tar na trop yoon wi xat na tamit moto yéex nañ am na ci ñenn ñoo xam ne fajar la ñoo yeewoo ci seen kër yi waaye balaa ñooy yeggee ci seen place liggéeykaay yi wala sax fu ñooy dem day fekk naaj bi tàng na te lu ko waral mooy yoon wi naka dafa bloqué maanaam trafic bi dafa yéex loolu naka tax na suñu ndaw bi naka ni ki démb mu génn pour waxtaan ak askan wi xool naka yéexaayu trafic bi jafe-jafe gum leen indil ci seen wàllub dund wala sax ci wàllub dem ak dikk bi si jamono ji naka driver yi ak nit ñoo xam ne ñoo dee jëfandikoo wàllub dem ak dikk bi doon na ñoo xam ne naka ñu ngay joytu ne seenub soxla yëpp daf dee tardé ndax naka yéexaay yu moto yi bu ñëwee naka ci yoon wi am na ci driver yi ak itamit ñenn ñoo xam ne naka dañu amee seen moto bopp ñiy wax ne naka ñoom dañ dee am ay waxtu wala sax lu ko ëpp bu ñëwee naka ci yoon wi te lii mbir la goo xam ne mu ngi leen di sonal ndax naka trafic bi dafa yéex ñenn ñoo xam ne naka waxtaan nañu ak ñoom ñooñu naka xamal nañu ne jafe-jafe gi naka lu ko waral may Gambie naka amuñ yoon yu bari yoon yi ginnaaw yoo xam ne naka yooyu la ñu am ci ruquru xaan yi bu ñu duggee naka ci nawet yoon yooyu yëpp dañ jaar moo tax nag moto yëpp jëmale ci yoon wu mag mi te loolu nag benn yoon rek la muy yoonu Brikama Westfield highway bi ñu ci bari naka boobu lañ dee jaaree moo tax nag yoon wu bu dee xat am na ci ñeneen ñoo xam ne tamit yoonu Sénégal bi lañ dee awee ñoo ñi nag benn mbir mi la nekk di joytu ne yoon wi dafa xat te moto yi nag dañoo bari tax na nag mbir mi muy bu ñëwee naka sa yoon bu bàyyeekoo Sénégal bi jëm naka traffic light dem ba ci ba Avenue nit ñoo xam ne naka ñoo nekk di jëfandikoo yoon woo woowu ñu ngee coytu yéexaayu moto yi ak i daw goo xam ne naka duñ koy mën a def bu ñëwee naka ci wàllu dem ak dikk bi ku ñu naan Samba bi tey moom mu doon naka ab taxi driver taxaw naka si Westfield traffic light moom naka wane na ñàkk kontaanteem jëmale ko naka ci mbirub yoon gi. yëpp a ngi seer dara dara waaw client yi moom wax dëgg yàlla mu ngi am waaye fooy foo foo wiiree tamit police yi ñu ngi laay ñu sonal waaw fii doo taxaw fii doo paak fii xam nga lu tamit dafa métti si taxi bi dëgg-dëgg. Youssoufa Danso moom mu doon naka ab waajur moom naka xamal nañu jafe-jafe gum dee bu fekkee ne naka mu ngi yóbbu doomam ji si buntu jàngee kaayam gi moom it naka mu war a dem jàngee. village rôle si ñoo mun a ease trafic bi si man lu ma gis bi so that's the only thing I think is mu continué di wax ne naka trafic bi daf dee bloqué torop tax na naka moom su xëyee fajar bu yóbbee naka doomam ji school balaa moo yeggee sax day fekk naaj bi tàng na te moom bu bàyyeekoo foofu dafay am naka pour delluwaat dem moom it mu dem naka jàngi mu ne bit bi sa daf dee liit ndax naka trafic bi dafa bloqué mu ne yenn saay moom daf dee dox naka ba bamboo dem ba ci tipa garage ndax naka moto yi dañ dee yéex daanaka tànk sax moo ko gën a gaaw mu ne nguur naka dañu war a def dara jàppale yu nekk ci biir dëkk yi pour gis ne naka trafic jam bi wàññeeku na. Alaaji Sambo moom mu doon ab driver bu dee daw naka Bakau jëmale Westfield moom naka wax na ne yéexaay yu moto wala sax trafic bi doon na jafe-jafe goo xam ne driver yëpp ñoo ko nekk di jànkuwanteel mu ne moom naka motom gi baaxul mu ne bu xëyee suba Brikama la de bayee ko mu ne balaa moo egg Westfield yenn saay sax motom gi day pant yoon wi ndax naka trafic bi nu mu yéexte lu moo ñàkk ci essence bari na. trafic bu bloc bi moom mooy loolu parce que ñun man moto bu ma yoree sax koregut yaa gis suñ nekkee si trafic bi tey bu ma doon jógee Brikama may ñëw sax dama ñëw ba Cogistown suma moto bi tànga ndi trafic bu bi depuis Tabokoto mu ngi bloc ba Westfield mu ngi bloc soo soo nekkee di toppa rang-rang boobu sa moto bi moo dee tànga wala sa fuel bi jee yaa gis wala nit yi di nekk borom ray day xam nga client yi suñu waaja nga ibi bunda bi mu tampo nga client bi ak bunta bi yëpp loolu yëpp daf dee xapoon si yoon bi. Moussa Diallo moom it mu doon naka ab driver de daw naka Bakau jëmale Westfield moom naka wax na ne yoon wi baaxul te loolu naka tax na moto yi ñuy yéex. trafic yi rek mi bi baaxul loolu mooy foos so da nga dee ñëw nga gis no parking ni double parking ñu suñ driver yi sax suñ boobay suñ aagee pour wàccee client am na yoo xam ne du nangu moo dee moo dee bii saa mu so loolu kese la waaw bañ a wàcc tali bi ak dabul paak yu nekk si kaw tali bi waaw a pay paak yi tamit loolu tamit mu ñu obal lifin sonal si naan yoon yu gën a xumb wala sax yoon yoo xam ne yu la askan wi dee gën a jëfandikoo mi Westfield Tabokoto highway bi dem naka ci Serekunda jëmale Batin Harding highway doon nañ naka yoon yoo xam ne ñoo gën a xumb wala sax yooyu la askan wi dee gën a jëfandikoo bu ñëwee naka ci suba gi wala ci ngoon si si jamono joo xam ne nit ñaa ngee dem liggéey wala nit ñi wàcc nañ yoon yooyu daf dee xat trop ba sax moto yi dañoo raam wala sax dañoo taxaw benn place te lii naka tax na ñëw si bari dañ lay am naka ay waxtu wala sax guddee ci yoon gi wala sax yenn saay waxtu ne naka boobu la ñu war a yegg ci seen place su liggéeykaay yi waxtu googu day jàll te fekk naka yeegangoñ askan bi naka ñu koy joytu jafe-jafe yi yaakaaree ko naka ci nguur gi pour ñu saafaraal yi la jafe-jafe jàppale askan bi naka bu ñëwee ci wàllu dem ak dikk bi ndax bu yaxanee mbirum liggéey gi tamit mën na moo jëm kanam tund yu bari yu nekk ci Afrique ñoom naka ñu ngi joytu dellu ginnaaw gi naka bu ñëwee ci wàllu dund gi mbirub koom gi ak tamit banqaas yoo xam ne naka ñoo nekk di liggéey ci wàllub dëkkuwaay gi tax na naka si jamono ji ndaje goo xam ne naka kilifa yanko ngi ko nekk di am mi African Commission goo xam ne naka dañoo taxaw pour xeex naka lu aju ci àq ak yelleefu doomi aadama ñoom naka si seen juróom fukk ak ñetteeli waxtaan gi ñu ngi waxtaanee mbir yoo xam ne naka moo aju ci wàllu woowu te naka ñoom seen tànk lu mu doon mooy pour saafaraal jafe-jafe goo xam ne naka askan waa ngi koy jànkuwantil ci seen wàllu dund gi wàllu fitna gi taxaw naka si seen yelleef taxaw leen tamit si jafe-jafe goo xam xam ne naka boobu la ñu nekk di dund ci seenub dund ngir gis ne yombal nañ seenub dund gi indil leen naka kaaraange gu dëgër ginnaaw bu doon waxtaan ak QTV ba ñu paree naka sa ndaje bañ ku ñu naan Rita Owaka moom mu doon naka coordinateur ci mbootaay bi seenu bànqaas gu taxaw pour yaxanal naka dundinu askan wi moom naka wax na ne si jamono ji lu ñu taxaw mooy pour gis ne wàññil nañ naka jafe-jafe goo xam ne askan wi yooyu la ñu nekk di dund bu ñëwee naka ci seen wàllu dëkkuwaay gi ak mbirum mbay mi te lii naka ñu ngi ci fas yéene lëkkaloo ak compagnie yu nekk ci biir Afrique mu continué di wax ne tamit ñoom ñu ngi tëral naka ay sata yu ñoo mën a jël naka pour gis ne dooleel nañ naka marché bi yombal naka wàllu dund gi ngir askan wi ñu mën a am naka mbir yokkute mu ne te lii naka ñu ngi am ndaje jaarale ko kilifa yi pour waxtaanee mbir yoo xam ne naka moo aju ci wàllu dëkkuwaay gi waxtaanee sart yi ñoo mën a tëral ngeen ñu saafaraal ko. Mrs Waako ba tey rek mu continué di wax ne ñoom lu ñu bëgg rek mooy nit ñi askan wi nag lëkkaloo nañ dooleel nag mbir yoo xam ne moo leen di indil ab wéccite ci seen wàllu dund tëral ay sarta yu leen di aar sarta yuy taxawu seen yelleef sarta yu leen di indil nag ab yokkute ci wàllub dëkkuwaay gi James oto moom mu doon naka Sustainable Development Institute bi mu doon mbootaay bu nekk sa dëkkub Liberia bi moom naka wax na ne dafa bokk naka ci taxawaay goo xam ne naka ñu ngi ko jël ci seen ndaje gi may askan bi naka doon nañ benn xeex naka mbir goo xam ne moo leen di indil ab jafe ci seen wàllub dëkkuwaay gi mu ne mbootaay yu African Commission bi doon na mbootaay goo xam ne naka ñu ngi xeex lu aju ci ak ak yelleefu doomi aadama te ñoom naka sax tey ñu nekk di tëral wala sax mbir yoo xam ne ñu ngi ko nekk di dooleel mooy mbir xam ne naka mu ngi aju ci wàll wàllu pàkk yi yelleefu askan wi ak wàllu dëkkuwaay gi ci taxawaay goo xam ne naka jën nañ ko pour gis ne askan wi bennoo nañ saafaraal naka jafe-jafe gu ñu nekk di ñu ne naka dinañ dooleel wàllu mbéy mi mbirum àll gi tamit naka dinañ xeexle askan wi ci mbir yoo xam ne naka moo leen di indil ab jafe ci seen wàllu dund gi surtout ma naka bu ñëwee ci seen yelleef gi tamit nañ leen taxawu ci mbir yoo xam ne naka moo leen di indil ab yokkute ci seen dëkkuwaay gi ak yeneeni mbir yu leen di dooleel ci jamono ji nag mbootaay gi ñoom seenub ndaje gi ñu ngi waxtaanee mbir yu bari yoo xam ne nag mooy dooleel askan wi ci seenub yelleef te yi nag bokk na ci pour indil nag jàmm ak itamit njub si lu toll nag si juróom-ñaar fukk ak juróom-benn dëkk yoo xam ne nag ñoo nekk ci biir àddina si. mbokk yi xibaar yi lañ leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaatale yi ngeen di doon ànd ak Xadijatu Koliñ di leen jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu may ñu ñeendoog jàmm jël ngeen jëf ci topp bi wasalaam